moom wax dëgg yàlla ay jaboot lañu dëkk ci koñ bi di war di jàpp di julli ci jàkka mënuñoo fexe fexe fexe fexe ba suñu njaboot gi am fu ñu jaar dem euh, jàng sonn nañ torop torop sonn nañ ndox maa ngi nii di wal guddeeg bëccëg kenn amul foo jaar mi nii nag bu ne waa mairie gis nañ bu fekkente ne ngir yàlla waa maire gis nañ nañ ñu dimbale ngir yàlla ay jaboot lañu yore ay xale yu ndaw ñuy jàngi war a dem ca jàkka ja ñoo fexe ba dem ca jàkka ja lii dara rafet xaar yàlla kenn amatul foofu génn lépp ndox la xool leen fii nu mel kenn amul fooy fooy jaar wax yàlla sonn nañ torop ñun jaboot yi boole koo xet boo xam ne ni kenn mënu koo nooy ah, li lu mat ñetti weer ba ñeenti weer ndox maa ngi wal kenn amul koo jaar wax dëgg yàlla buñ ñu dimbale woon dinañ jël ndax ay jaboor rek lañ waaw nañ ñu dimbale li metti na torop dafa metti torop ba fa kanam yàlla metti na fu metti yam amul kenn ku fiy jaar te amoo loo ci war a wax dégg koñ bi ñëpp war a génn wax ci ndax lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw pick up pick up pick up ma ko rek la jël ko rek suñu koñ bee ngi nekk ba ci kaw montagne bi bu dee koñu soxna maam Fatou Mbacke nañ ñu nañ ñu dimbali waaw fi nga fi nga fi nga. ma bëri rek laa jël ba mu

Đấy chứ. Thank you.

Posso ficar di leen xaw a xaw métti métti na trop ndax sañuy cooree ak ñu ndax ñu ñii tali bi état bi benn baax rek na ko may gaa yi si jàmm ñu ñu ba ñu ñoo ko doon kii sax di leen naajal laa woon naa jàmm ñu ñu ko dooleel ko gaa yi si jàmm tamit ñëw mooy loolu ñu rafetal ci ñu tamit sax gaa yi ñu ñu ñu toog si nit dañuy dañuy di feebar yooyu xaw nañu ñoo instant gars yi ñuy sax prévision bi ñu def compte yi di ko def laay wala laay chaque jour heure mbokk yi waaye duñ nangu mayam kii di gën a di ko sarwe nii di gën a sooy te tamit waroon mel nii bu ñoom ko waa ñu musul mel nii tamit ñoo waroon yeesal sax di xëy di ko pale ay dimanche nii xool ndaw fi muy jigee di wàcc wàcc kaw télé bi yaa ne si wax boobu wala

Thank you.